du Mbàkke sama sama kilifa ndax bal sëñ son yi booy sama wasila mi nga xam moo feeñoon ci weer wii juróomi fanu weeru koor sëñ Bamba am na ku dund sunna ku ci gane woon àdduna ku mu dénkoon alxuraan ak teraanga sëriñ son yi bu juróomi fanu weeru koor ci la feeñoon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci la ñibbi aljana dundal laylatul xadar ba fajar mu door a dem ajjuma sëriñ son yi bu wéy juróom bu jigéen dafa demal sëriñ Touba barzaq loolu mat naa xam soxna Mariama Bousso mi ko mi soxna Mariama Jaxate mi ko meññ moog sëñ Abdou Lahad ñaar la fa am am na sëñ Amsatu Jaxate wax na sëñ Tuubaa ni ko gént naa moo mel ni àdduna bépp dañoo yuuxoo ñu ni sëñ Tuubaa fii jóge ñu dem ba am ndaw yu lay jël si sunu borom ñu jikki-jikki nga am koo doxale ci digg bi ma xool ko mi soxna Mariama Jaxate sëñ Tuubaa ni ko géntoo dañ laa wan demal taxawul ma ko ba mu rot ba ruu gi am na lu may liggéeyali mu wàcc liggéey 1918 boobu sëñ sooy bu ci fukki weer la nàmp sëñ Bamba jël ko jox ko ku tedd ka ñuy wax soxna soxna xari xari mbar sill mu jur sëñ Abdou Samatum sëñ Tuubaa mu tudd ko yenant bi mu àggaleel ko nàmpoom moo tax keroog bi mu wàccee liggéey sëñ sooy boo ñëw taxawul ko ba xam ne maa ngi door a ñàkk sama wéejur wa moo ko defal lépp sëriñ sooy bu la sëñ Bamba dénkoon alxuraan te joog moom jullik suba jiite ko ko ba jullik tisbaar di jot sëñ Mor Jaxate noddu bis boobu àllarba la woon mu woo ko ñu wax sëñ Aliou Sëy ni ko toppatoo lu yóbbu sëñ Amsatu ak sama doom ji sëñ Sooy li ma def ak yow xam nga lu tax ma def ko sëñ Amsatu Jaxate ni ko man mii nijaayam bëggoon naa koo xam Mbàkke sa doom ji yaa ngi moom suba ba léegi lu tax nga defal ko ko Mbàkke bëggoon nañ koo xam suñ ko mënee xam mun dama koy jàngal teraanga dénk ko alxuraan mu ma koy jàngaleel di ko jàng suba la woote ah ngir di soxna Baali soxna Baali suba la woote ngir dimbalee waaw ku am moom sëñ Tuubaa njabootam gépp génn ñu Rasulullaay ba ci borom got borom mbuur borom jàppandal borom xel koom jaaga sangub seex Béthio Thioune borom 17 avril ak Cheikh Amar waaw sangub Cheikh Amar Serigne Saliou la force tranquille milliardaire bi dëddu woon àdduna savant bi daan wax tuuti ku ragal yàlla ki ki daan sàkkloo sarax ki jeexoon tàkk ci Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké borom jàmm ak jamono sëñ Saliou moomee mu tudde ko yarante bi mooy le vertueux ku yiw ki le am atam mu tedd ma seigne mohammedul murtada tudde ko yenen tubi demal italy demal singonia demal Paris demal Cagliari demal Piacenza demal Rom, demal Catania demal Verona demal Palermo demal Sicile demal Milan demal eh, fuñuy wax fuñuy wax wax Rome di capital catholique lepp sëriñ demal Chicago dañ fa dem ñu bind ci musée ba ni sëñ Tuubaa dafa def ci géej gi. na. ni ñuy wax. waxoon nañ mu ni mu ni ma mu ni fokk ñu dem si ka mu ni damay dindi tuuma. Cheikh Balla Samba ngi may dégg. wér na. bi ñu se mu ànd ak maire bi ak waa musée bi ba si te loola mu ni nii loxoom ni génne ka. mooy sama wéjur maa ngi nii. ni ko jàpp maire bi ni ko ginnaaw bi mu jógee ci géej gi. laa gën a jamono. 1920 kookoy góor yàlla. waaw sëñ ma góor yàlla. xam nga nag laal nga kii moo noppi ci man. ndeysaan. moo ma ne woon bi ñuy xar sa ji bi ñu ji Ablaye ñaaroo gay naagu taxul. ndeysaan. di tudd yàlla. ndeysaan. Abdoulaye tabax loolu na ma ñetti njëkk ak i juma. Abdoulaye ma ne ko Mbàkke mënuma dañu lay dimbali waaye li li neex ci àddina mooy tëjoog Seex Murtala ci mu néeg doo wopp doo rët doo am soxla doo yëg sa bopp dara bu la joxee digla. waaw kartaabal bi fii la koy teg. caabi yi mat na téeméeri waaye bi mu rek lay def muus. waaw ilay la ni ko tel gars yi ni ci buntu bi kër kër kër kër mun ma dee naa de man ko du ma ubbi mu ko bàkkee. mun a maag yow rek ak yàlla kookoy góor yàlla. moo mujj ñëpp ci Serigne Bamba. te am néeg boo ca fàttee sa montar boo dikkee laaj ko kala fa mujj bu la ko joxul doo ko am doomam ji di Maam Moor moo tabax université bi ci ndaam. waaw. li bàyyam yéene woon moo ko yeggal Cheikh Mourtala moy sey bi sey ci lislaam gis nga l'islam bu roonu nak ku waree da nga fay seigne moustapha tekat demal tekat mom mo gane aduna ci wéru ki seigne Touba gëna bëgg dégg ngeen ma ki seigne Touba gëna bëgg moy yaronte yalla Muhammad wéru rabiul awal di gam seigne moustapha ci gane aduna ñaar fukki fan ak juroom ben seigne Daam abdourahman Lo di ko gatando ay gat di lewatal gat yi di gatando gan gi mu fe ñaar fukki fan ak juroom ben ñu dolli 7 jours tanal ko tur muy 33 jours 33 gat seigne Bamba bind ci kayit ni Muhammad wéy juróom bu jigen bind juromi kamil te xoolu bu jigen señ Bamba bind ci gi Muhammad señ ndam Abdourahman lo jambaram ja jangale alquran dol ci almurtada ki nu gërëm lislaam gërëm na ko ma nga ca loxo ba ma nga ca loxo ba muy mi Muhammadul Murtada ma nga ca loxo ba waaw waaw Cheikh Abdoulaye tey jii la fukki fan ak juróom ñaar ci fukki fan ak di badar di bisu Badar. waaw tudd nga bisu Badar ci sa waxtaan. waaw diggante borom Touba ak Badar. waaw ak borom Touba ak wa Badar ak daraja yam ci doon wut. loolu soxla nañ dana ci ñew damay ñew ci yoyu dañ ma téye laaj rek. ma ngi won fat dee dugguma fofu sëñ Touba ak tu bi lañ ma laajoon man ñaari question la tollu fi mu ne émission bi bëgg jeex sëriñ Touba ak Moustapha digganteem nonu la ko bëggee kon njabootam gépp génnul yarantu bi mom la ko jox dégg ngeen sëñ Abdul Ahad ni nit ñëw na fii di ko jox pañe guro sëñ bi ni ko loo ci jublu mu ne ko damaa dégg dangaa bëgg guro damaa bëgg dangaa damaa dégg dangaa bëgg guro sëñ Tuubaa ni ak ah, cim rus naa ñu may askanale ci bëgg lenn lu dul yanant bi ak ak yàlla borom ni ko sàkk nañ génne luy guro sama kër keroog lañ ko génne keroog la noppandikoo jëfandikoo guro ndax bëggam Moustapha dem na ba boko tegalé café tegal ko warga ñu suukar ko mu ñak suukar xamatul cafka ki ndax neena dara safatu ko mustafa koy saf jeex tak ci mom koku moy Cheikh Ahmad Bamba kon jallal gaaw ci benen laaj diggam ak alxuraan sëñ Touba moy alxuraan xam nga dañu laajoon <laughs> sayyidatuna aisha kana yenantu bi mu ni kaanu xuluquhul quraan ay jikko moy alxuraan sëñ Touba incarné alxuraan la maam xalifa ñas bu kawlax waxoon ay dëgg dani huwal jalaalaani tafsirun li mansibikum misbaahu ilmin ka dawxi sub i lamaa daa nekk téere yàlla wàcce ko waaye am na ku nekk jëmm moo firi alxuraan muy sëñ bamba waaw moo wax loolu sëñ tuubaay alxuraan alxuraan jooju rek la sëñ tuubaa daan teg ci ay lalam sëñ amidu joxoñ ko naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta qablu tabibi أنت عزي ومفخري أنت جاهي أنت كنزي يا فخر كل لبيبي نانكو كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم نور سرق والغرباء نانكو كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد قد على العجم والعربة نانكو كتاب عزيز من عزيز معزز لعبد عزيز دونه من هوى قربا فتوبا لعبد يعبد الله ربه بترتيل قرآن عظيم يقي كربا ديكو جوخون نان كتاب به نرجو من الله رحمة وننجو به الدنيا وأخرى من الكرب بوكو تك بوكو تك qiraatu ha kanzi mbir a nekk ci bayit bobu nak ci muxaddamatul amda ta mat na xam nubbawa muy ak yanantu mo upp doole nubbawa yanantu mo upp doole bu jalle siddiq ya ci top grat bu kawela siddiq ya dem ba yalla d'accord sa lepp ni deugal nga aboubacar siddiq moy sen sang yanantu bi jox na jaaro amul ben contestation wern sire andina ne ko demal ci teug bu aay na def ci kaw jaaro bi laa ilaha illallah bakkar joy jox ko teug ne ko def ci la ilaha illallah lol la ma sama sang sant waye man bakkar mi mu yoni ma beug nga doli ci muhammadun rasulullah teug bi def ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah jox ko sadiq abou bakkar jël jaaro bi ñew ba ci Mustafa jox ko mustafa ni ko liiral luñ ci jàng ndax mënumaa lire xol lu ci nek mu ne ko bindal na la ci laa ilaha illallah loolu nga ma santoo it man Aboubacar maa ci defal sama bopp Muhammadu Rasulullah ndax damaa rus a tàqale sa tur ak turab waaye li ma jaaxal dama ciy gisaat Aboubacar laa te maa ngi giñ ci yàlla mi la yónni ci dëgg defloo ma ko defuma ko tëgg bi defu ko ndax bi mu koy defar ba àggal maa ngi xool bindu ci lii lu ko ci def jaaxal na ma Moustapha muuñ ak sàkkara yàlla wa ni ko Jibril la ngi taxaw fay ko nuyoo neena yalla moko ci defal bopam li nga rus takale sama tur ak sa tour touru turu motax yalla tax takale sa tur ak sama abou bakkar musta wedde yanant bi musta weranteeg ak mom moko njëkk a gor su ko njëkk a abou bakkar sadiq top ko deggal ko bima rañani mo moo saxal ni werna bu ko waxe alquran tag nako ila tansuru fa khad nasruhu llah izahrajul lazina kafaru izuma fil يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا ولا عزيز حكيم سورة التوبة moo ko dëggal gëm ko ànd ak moom gàddaay fukki mbir ak ñaar Moustapha nee na maay première bi ma nee gees Aboubacar mooma secondé mooy sama deuxième moo nekk ci garaatu siddiqiya cercle bu tuuti la ñi ci dugg bariwul ci jaam ñi sëñ Bamba nee na jàng naa alxuraan ba yàlla dugal ma foofa moo ko wax nu ni ko bindal mu ni xiraatuha jàng alxuraan kanzi mooy sama banque bu ñëpp jëlee seen carte gab dem di fëgg banque ngir jël lañ fa def ci koppar man sama kart gab ci alxuraan laa koy jëlee xiraatuha kanzi waaye wa jaahi mooy sama daraja wa izzati mooy sama tedd ngeeg sama noblesse uniltu biha amee naa ci jàng alxuraan kaw nii nekk gu ma nekk man sëñ Tuubaa la dal laay fa yàlla za di boroom dëggal dugg ca ñu dugg ña nee na nag mooy téere bi nga xam ne amul sikk amul werante léppam njub la yàlla wàcc ko jox ko jàmm fa kullu man xaaqahu laaqa saqawaat nee na képp koo xam ne nag alxuraan joojee nangu caa jàpp wan ko ginnaaw ni du ko kiim di ko gàllankoor bañ alxuraan day mujj moo sëñ Tuubaa ne ko bañ alxuraan wan ko ginnaaw day mujj nekk texe texee di du dem àjjana kon ko wan ginnaaw alxuraan doo dem àjjana wa huwa kitaabuhul mubiin nee na alxuraan mooy téere bi leer ni fàññ leer jaa bihi nadbul amin waaye nag xam nga ku ko indi ñu ne waaw mu ne ndaw loo xam ni ndaw lu wóor la di ko yàlla wóolu di sang di jibril bi izni rabbil alamin ñu jóge jële ko nag ci ndigalu yàlla boroomam yaa xayra zikrin xat bada nee na yow alxuraan mi nga xam ne yaay ngën gi lu ñuy wax loo xam ni feeñ nga mi man safaayi abada yow mi nga xamanteni ni ya nga jugge ci nga xamni léppam dafa sel li xalle dan na raqada yow nak yow alquran lima ma doon xëy mem lépp ya mako saxal za amanin wa khidami motax ma nek borom confiance ak sécurité ken munuma yakal anta rafiqi lil jinan yaay sama xarit yow rek lay nekkal yow alquran ba keroog may dugga àjjana yaa man yasunu lil makan yow alquran mi nga xam yaay fekk keur nga garantie ko sécurisé waliitu tayyibil janan yow ci yow alquran kep la sama xol bi di ya xayra zikrin muhkimi yow nak yaay ngeen gi alquran bo xamni ñëw nga atte lépp bi ka sa altu maaliki ci sa yow alxuraan laay ñaane yàlla sama borom mi ma moo kaw ni ya nuura zaaliki ma mujj nekk man sëñ Tuuba di leeru képp koy jaamu yàlla may sa leer wadan gisaa bi naasiki waaye itam ci alxuraan ci la may yàlla di ñoddale képp ku nar a topp yàlla jubal di man jalaawal mubhami ci lépp loo xam ne lu feeñ la ak lu ñu lëm wa an yaquudali nabi ndeysaan di womat yàlla nga womat nag ci sa dara yow yàlla ci alxuraan ci jox yenant bi fii abadin bi ndoxu bi ba keroog nag àdduna di tukki jafal sang bi salaamayil muxarribi salaatoog salaamu boo xam day sax dàkk ci moom jigéen bilantihan wal maxtami xam du jeex nag te dootul am fu mu yem. mooy alxuraan. wala alxuraan la bëgg. ma wax la beneen mbir. Mhm. keroog bi mu wàccee liggéey 1927. sëñ Moussa Ka dani kuy jooyle sëñ Touba kuy jooy sëñ Touba alxuraan nga koy jooy. Hmm? ngay jooy. ñu ne ko noo koy jooyee sëñ Moussa Ka jël xalima ni déglul ma jooyle alxuraan. waayam ju mat jabaarañaan da koo defoon ab kerkeraan di dem di jël si dina wax. ca lay gisee ngën gi mbindéef mooy kanoom ngay noti chef gaal ga muy jàllee mbindéef ca bis ba kenn dul tala sex moo ko la deeti def ci taax boole la teg ci lal yu baax boole la sotti lokkoloj ju baax te dem fanaan ci néegi ñax moo ko la deeti jëndulu yow alxuraat moo ko la deeti jàngulu moo ku la deeti bindulu bu ñuy nelaw mu di la wax ku deeti fab ay junneem di def ci yow mbaati gëléem te def la koomum jamonoom ku ko fi xam na ma ko wax di tuddi sa di tudd aya di xiyaar di tudd sar di listaxaar di xiyaar ba ni li la yalla wax dal ni mus ya lay weteliko durus ga lay fagandiko talif ya lay jotaliko leer ya gendo mel melax mbakul di bindu diko ko gannar di bindu diko yot salum di bindu diko yot muy jëndi mol di carax so fete wo diko bindal mu wo di la dundal so koy bayal diko bindel, bindal mu sakku ñuy bay jela jox sëñ amidoun lo momul doko may lo momul doko may déedéet loo moomul doo ko nangu damaa ma sa wax fi sëñ Tuubaa dañ ko moomale alxuraan ñu may weddi fii ma gisee ñuy raddu man mënu leen maa radd man lu ma wax bayit la sëñ Tuubaa bind ni man la kënil quraana def leen attention nag fi ngeen jàngi arab lañ ko jàng mhm. te ci ay diplôme yu bari la ñu toog di door a wax mhm. mani man la kënil quraana dafa man suub de alxuraan la moom man la këni su amee sidda ñu tax siit ko mooy moom loo na ma waxul malaaka nii bu am loolu seeta ni malaaka nii mooy alxuraan moom na ma bu boobaa kon alxuraan dootul mën a tee man sóob waaye boobaa day rafaa day dam ma waaye dani li mu moom la ndax boobaa di nekk faay kon maf'ulun bihi la ku ko moom loo yàlla mu ni mallaka nii moom la noonu moom borom lu mu la moom loo mu ni alxuraana alxuraan ñun noo ko moomee mu ni tam lii kan yadu moom koo xam ne day sax feeg ñu koy jàng sama moomeel la lu ko la ko may mu ni bi an na nii bi an na nii xillun wa xibbun wa xadiim yàlla bu lay préparé def ma xarit def ma soppe def ma liggéeykatu yanantu bi faaw mu jël ngën gi wax ni ma yow laa ko dénk sëñ Tuubaa nee na maag alxuraan noonu la demee dañ ko ko moom loo moo tax ba wax la ci ñaari mbir damaa wax lu may leeral. loo moomul mënoo koo maye. loo moomul mënoo koo nangu dama lay indil kum ko may indi kum ko jële ci moom. waaw soxna naa ci sëlëm sëñ Madiba de. waaw mais kenn la wutul yow la ñuy déglu. wallaay ndeysaan ñu ngi koy ziar sëñ Madiba Sylla. Hmm. waaw bokk na ci moom am nañu ni sax moom la sëñ Tuubaa mujj a seexal. day day dëgg. sëñ Madiba Sylla. cëm. ku sëñ Touba fonkoon sëñ Madiba Sylla def naa waxtaan bu kawe ci moom dama bëgg ma ci duggee léegi ngeen tànn ñeenti mag wala juróom ma wax ku nekk ñooy waaw léegi may ma ma jeexal